wa man bi ihsaanin ila yawmi diin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp euh, fuñ mën a nekk ci àddina bi te di ñu topp ci seen seen MKTV muy seenu muxadimatul xidma bu Grande Mosquée de Touba di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko bi barakati xaadim rasul mbokk yi ñëwaat nañ ci émission bi nga xam ne eh, émission bu am solo la ngeen koy topp muy émission gàggantiku ñu leen koy defal weer bu nekk ñaari yoon di ci ànd ak ay boroomi xam-xam eh, ñu ñëwaat fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër Serigne Mbacke Abdourahmane eh, mi nga xam ne miin ngeen ko ci seen bii lool ngir muy ànd ak ñun ci waxtaani diine ak ay laabiire yoo xam ne daf koy jariñ jullit yi tey jii nag ñu ñëwaat ngir fas yéene indi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 wa sallallahu taala wa sallama ala nabiyihi alkarim maulana muhammadin wa alihi ajmain euh, jërëjëf sëñ Abdou Lahad maa ngi leen nuyu di nuyu mbokk yëpp euh, sëriñ Jiili ak sëriñ Cheikh Diop mi ngeen àndal di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ëttub xam-xam bi di ziare bu baax sunu kilifa Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan sunu borom gën koo dolli tawfiq di nuyu mbooleem mbokki daayira Muqaddamatul Xidma di lu taxaw yu am solo yi ñuy taxaw ci diine ngir jàppalanteeg mbokki jullit yi ci jëriñ leen ak leeral leen seen diine jërëjëf. jërëjëf sëriñ bi euh, ci nuyoo bu am solo boobu kon mbokk yi ñu ngi nuyu tamit suñu Abdou Khadir ak sëñ Cheikh Diop mi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi euh, sëriñ bi kon laaj bi njëkk ci wax jataayu tay bi mbokk mi dafay laaj mu ne ndax ki nga xam ne dañ koo njabar maanaam moom masul la euh, ci ay jëfam maanaam am na responsabilité dañ koy njabar ba nga xam ne tàggoon ak sagoom ngir muy def loo xam ne euh, du lu jaaduwut la ndax kooku dana euh, am bàkkaar ci la muy def xëy na loolu la ci jublu rek. Hmm. waaw bu fekkee ne njabar gi àgg na ci mu dof bu hmm. def nit bu nekkee dof nekkatul mu kàllaf. Hmm. mu kàllaf lañuy laaj ay jëfam. waaye bu àggee foofu nag moom jàppal ne lu mu jëf kenn du ko toppati. waaye na fekk mu àgg ci nag xamatul dara teg nag koo xam ne la muy def xam na ko xam nay jotee. waaye koo xam ne àgg na ci xamatul dara ñépp xam nañ ne kii ënt ak sagoom uh-huh. xelam nekku fi uh-huh. kooku la muy def ate moo di wér xel ñooy uh-huh. kii daal moom dafay laaj ne moom daal dafa bëgg takk soxna waaye yàlla dogal na amut amut lu mu ko takk maanaam daal amul amul uh, amul amul koom moo xam ne daal bëgg man na cee takk soxna kooku lan lay def euh, la yéen ay salaam waxoon rek ne yaa maasara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj uh-huh. wa man lam yastati fa alayhi bi sawm fa uh-huh. innahu lahu wija uh-huh. ku ci mën a yor soxna maanaam am ay lu tax nga mën a yor soxna dama denc ku ko mënut bare la looy woor ndax koor day wàññi bànneex dagg bànneex ba di la musal ci mooy yàlla kooku na muñ te moytu jataay yuy jeqi bànneex bi ci des it ñëm bokkal nañ ko leen ndax am bokk na ci aada yi ñu rafet la ñun fii ci su daw seen blaat man ngi dañ daa wax lu am solo dañuy wax ne kër gune ci kër lay juddoo mhm. nit ñi duñ bàyyi ba mën a denjal seen bopp door denc mhm. buñ ko doon def dana metti ci ñenn ñi waaye da nga ne ci biir kër ñu takkal la soxna jox la néeg yoral la ko bàyyi la na ngay góorgóor nànk-nànk yenn yu ndaw yi nga di ko di yoral sa bopp ba ba ngay mën a mën a beru mhm. loolu mooy kër gune ci kër lay juddoo gis koo xam ne day jékki-jékki samp kër boppam ginnaaw bu nekkee ci kër bàyyi wala kër magam ay at. Uh-huh. njëlbeen ngay dara dara waru ko woon ginnaaw ba doon na participer bu soxlaam aaye mu jox ko. Uh-huh. dem na ba mu yàgg maanaa yu bari mën na ko yàgg mën a beru. yu mel noonu ku nit ñi dee bàyyi xel kenn ku ne am na kootaane xay na mën nga ko tàmbalee moom ci yooyu. Uh-huh. waaye jafe-jafe bokk na ca li li takkoom soxna laaj wutal ko fu mu dëkk di ko dundal yooyu noonu kuy nekk ba boo yeexee takk soxna du yomb hmm. kon nag buntu dimbalante boobu moom hmm. ci aada yu rafet réew mi la bokk hmm. suñu kilifa yi sax daan dajale daan dajale léegi ñoom itam di ko def dajale ay njaboot takkal leen daf ci la ca war téyel leen ko ab diir leen buntu yi mën a dem góorgóorlu bu mën a melu yëpp nag yu am solo yoo xam ne eh, ay jeexitam dafay des ba léegi waaye du occasion rek ci waa ji moom ngir mu jéem a defi leneen moom loolu moom moom waaw koy ku mënta takk soxna a woor waaw waaw du wax ne mën di takk nag kon bunt bu róor ubbi ko na ñal waaw ndax gars man oh, su kii te soxla naa ko mun na muñ te it ah. mën nay def luy tax nag ndax bànneex yi lu yëngutu la mhm. yu ko yëngal lay moytu rek mhm. boo dee woor lu bari yéen salaam li wax doñ mhm. fa innahu lahu wija waaw koor day day day dagg bànneex ni ki nga xam ne kum tàpp dootu soxla yooyu koor xeer tàpp la ci yooyu la bëgg a wax ma ngi jégalu ci waxin waaye maanaam wax nga loolu dëgg la jërëjëf si bi mbokk mi dafay laaj mu ne ndax génn man yu walla mas yu ci ay nelaw ci lu dul ne e, ci kim génn daf koo gént ndax loolu dana yàq kooram wala déet waaw nit kuy nelaw nelaw mooy gént sëñ bi hmm. dana jafe maanaam nit kuy nelaw mën ñuy génn ci moom xëy na géntul di sëy la bëgg wax waaw géntul di na gis ne lii nelaw la la génn ci moom loolu yàqu ko hmm. koor moom génne man yu te tay ko wala mas yu te tay ko bëccëg xalaat wala nag moo yàq ko hmm. bu dee ci nelaw la moom moo xam nelaw yu ànd ak gént di séeréw ànd ak moom uh-huh. du yàqu ko waaye bu dee man la bu yeew war naa sangu uh-huh. fóot ay yéreem bu dee mos war naa fóot ay yéreem te jàpp uh-huh. uh, mbokk bi dafay laaj mu ne uh, ki nga xam ne xamut nan lay yéwénale ak julleem maanaam su jama su jamajee maanaam ki nga xam ne daal moom wax dëgg yàlla baabun fi sax wi jàng ko wala xamut daal su juumee ci julli gi nu mu koy yéwénale ndax moom su juumee dafay wàcce loola tàmbali waat geneen julli wala nu muy def waaw defar ak julli sëñ Abdou moo gën julliwaat loolu ñu bari dañ ci xamoon ko mm. suñu borom daa wax ne wala tubtilu a'maalakum mm. lu baax li ngeen def bu leen ko yàq maanaam fi ne ak julli goo jum jàng ko mm. ci ay sujjóot moo gën ngay julliwaat kon bu kenn jamono jaxoos daa dagg julli gi daa damay julliwaat loolu du ndigal li moo tax bunt la bu ñu war a jàng mm-hmm. di ko jàngal na bañ xam ko boo ko mënta jàng bul berul julli yow dama demal ci mbooloo bu ko defee imaam gàddu la yu bari waaw waaye moom kenn du jëf du baax deesu ko tàmbali di ko yàq dañ lay wax sax nga la boo kàbbaroon di julli masalan di di naafi la wala nga def leen fàttaliku masalan tey takkusaan jot nga kàbbar bay julli fàttaliku ne jullee goo tisbaar hmm. da nga ciy yokk benn rakka muy ñaar nga sëlma mu nekk naafi la nga daal di julli tisbaar doo julli takkusaan hmm. takkusaan ji ba yàqu na moom hmm. waaye doo ko sànn noonu da nga koy def ñaar rakka sëlmal mu nekk naafi la kon li ñuy wax mbokk yi mooy li gën mooy mu dem jàngi xam ni ñu def rek jàngi xam bu fekkee mënagu ko mhm. wala xelam nekkut bu mu beru du julli nay julli ca mbooloo mu ne dem jàkk jëm dafa julli mhm. jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj ne lan mooy maanaay xawlayni kaamilayni ci li yàlla suñu borom di wax naan wal walidaatu yurdixna awlaadahunna xawlayni kaamilayni waaw loolu di aaya bi suratul baqara suñu borom nee na way jur yi maanaam yaay la ci jublu mhm. dinañuy nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk waaye nag li ma naar aada yutim marada mhm. ku bëgg a matal mhm. at yooyu fukki weer ak ñaar ci ati jullit la ci mhm. jullit maanaam nag ñaari déggin am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne nit ki ñaari at lañ ko war a nàmpal rek but la bu mën a doon nañ ko nàmpal ñaari at mooy li gën a mat waaye nag ci kaw ñi ko bëgg matal am ñu wax nag ne liñ ci jublu dëgg-dëgg mooy daa am ko ko moom xale buñ ëmb juróom benn weer hmm. wala su ko feral te nampul ñaari weer ñaari di ma sëkk hmm. ñu waxul dañuy boole wa hamluhu wa fisaaluhu hmm. su boobu nee na nit ki ab ëmba mu ko feral lépp fanweeri weer la kon ku kuñ ëmb juróom benn weer ngir fanweeri weer mat faaw ñu nàmpal la ñaar fukki weer ak ñeent mooy ñaari at mu sëkk ngir xam lu hamluhu fisaluhu thalaathuuna shahran doo ko dégg waaye kon ku ku ku ñu ëmb juróom-ñeenti weer mhm. buñ ko nàmpalee ñaar fukki weer ak benn fayru mhm. ndax ci lay ma defan weer mel ne daal kon dañuy xool ëmb bi mhm. ëmb bi ñaata weer la la ca moom lañuy ñuy mot li ba mat fanweer ba mat fanweer kon ki ki ki ñu wax ne mooy matal fanweer mooy ki nga xam ne juróom benn weer la am judd loolu am déggéen wu ñu ko ci am xam ne kon day mel ni doom ji juddu ci juróom benn weer kooku dañ ko war a nàmpal ñaari at sëkk mhm. waaye li li lëngal wax ji njëkk ji nag mooy ne lim ne li mu wax ne li ma mhm. kon nekkul force joo xam ne foofu ku bëgg a ku bëgg a matal daal da nga nàmpal ñaari mhm. euh, ko defee ne xëy na foofu seet daal li moo tax bàyyi loo mooy euh, nàmp li ci borom docteur yi wax juróom benn weer yu njëkk yi doom yi li mu soxla lépp mu ngi ci soom jërul jox ndox jërul jox leneen xanaa mu wér di ñëbbu hôpital bu loolu matee na ak genn jàllee nag ñuy nàmpal di ko walee ko ñam mhm. ba buy fer fekk tàmm na lekk mhm. daa bokk ci fii li nga xam ne gone goo feral mu xiiboon dañuy dëkk di ko nàmpal rek du jox lekk benn yoon mhm. benn bis ñu xëy bindub téere tàggale kook feral loolu jafe-jafe war la jur nàmpal feral li ci gën mu nekk bit tadrij nga xam ne doon nàmp lu ma juróom wala juróom-ñaari yoon juróom-ñetti yoon ci bis. Uh-huh. nga wàññi nànk-nànk. doon nàmp fukki yoon ngay dem yàgg di ko nàmp par juróom mu nga def di nàmp ñaari yoon mu yàgg muy nàmp benn yoon kooku bis buy fer bu ko yëgal yaram. Uh-huh. waaye loolu it lu mat a bàyyi xel la waaye ni ñuy def nii nga xam ne. Uh-huh. benn bis ngay xëy rek ne ko tey tey tey nga fer. fekk mën naa am tamutoon lekk tamutoon dara. léeg mu jur ak wéradi yu xiiboon Euh, jeexital sax ci wér gu yaram xale bi mhm. waaw jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax ji nga xam ne ñoom la ñuy wax euh, alaamiluun ci asaka maa ñi nga xam ne dañuy liggéey ci asaka sañ nañoo jël ci alal ji di ci jëfandiku nu mu leen neexee wala déet loolu seen baat kenn sañu ko alali asaka alali foqara ak masakin la mhm. alaamiluun alayha buñ amee ñoom ñenn lañ ca mhm. waaye du caa yéene ñooy jox seen bopp nu leen neexee. Mhm. déedéet bi ci des it alhamdulilah am na fi mu war a taxaw bu fekkee ne am réew mu lislaam moo taxawal. Mhm. moo dajale dajale asaka. ñam jël. Mhm. ngir ñu ciy liggéey. amilu naa lay xale. su boobaa ñoom lañ leen di jox. joxuñ leen ngir ne ay foqara lañ. amilu naa mën naa nekk xan ba noppi jox ko asaka. loolu ak fay la mooy day mel ne agent agent boo jël. muy liggéey nga di ko fay di ko yónni muy dem ak dikk. léegi nag lañ ko daan fay ñu jël ci asaka ji fayee ko donte mën naa nekk koomal moom loolu nag day wuteeg seen daal lu mel ne tey ñi ñu tudd fii amilun alayha mooy kuréel gu taxawal kërug asaka nga xam ne ay nitu ko coobarewu ay nit di leen jox seen asaka ñu leen koy séddaleel ñu ay wukkalaa lañ ñooñu fi ne mën nañoo jël ci asaka bi sifatihim fuqara buñ doon ñu ñàkk mën leen ci jox waaye ay nit ñu coobaree ñu yàlla lañ waaye dëgg-dëgg amilun alayha nguur moo koy samp jël ay nit di leen fay mm-hmm. la mu leen fayee nag mën na koo jëlee ci asaka ji la mu bu dee nag mm-hmm. ñoo xam ne ñoo xam ne dañoo coobe du ko def buñ nekkee fuqara wala ñu nekk ay miskin mën lañ leen jox ci tur woowu mm-hmm. moo tax nit fi ne mën na ko jox asaka ci ñaari tur fii ne amil bu nekkoon amil bu bu yoon teg ba boole bu nekk ci faqir mën nañ ko jox ñaari ñaari yoon asaka bi sifatihi àndal mu nekk fay bi sifatihi faqiira mu nekk ab sarax bu ñu ko ñaar yoon waaw loolu day am ci ci ci bari ci yi am nii mm-hmm. euh, mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci euh, dagan na euh, neeferay fas ndax lu laab la wala deet waaw ay neefere moom daa tënk boo xam ne lépp lépp rab wu ñuy lekk mm. hmm? bu dundewul sobe ay neeferem laab na waaye wépp rab woo xam ne kenn du ko lekk neefereem sobe la am ngaanaayam sobe la ay neefereem sobe la mhm. kon fas mii ci mësëb Malick kenn du ko lekk moom mbaama yam mhm. kon seeni neefere sobe la mhm. bu dee nag ak xar ak nag yooyu seeni neefere du sobe buñ lekkut sobe lu mel ne ginaar boo ko yee boo ko tëjee ci ngunu di ko jox pepp ak yooyu nangam neefereem neefere du sobe waaye su dee dem ci seen ba di lekk ci sobe sa nag neefereem sobe lay doon yooyu la ñuy jàllaa la loo xam ne lu laab la waaye day dunde sobe mhm. waaw yooyu moom dañuy wax ne ñoom seen yàpp dagan na buñ ko rendee waaye nag seen i neefere sobe mhm. maa fas moom daa bokk ci ñi tere ku ko lekk ci musab Malik dafa araam lekk ko moo tax ay neeferem sobe la mhm. am ngaan waayam sobe la euh, jërëjëf sëriñ bi kii dafay dafay wax ne ndax dana doon woj bu ci ki nga xam ne dafay naafila di jàng alquran ba dem ba ci biir mu yëg ne moom dal ku jekku alxuraan la wax loolu dana doon naw jëf wala déet waaw xam nga naw jëf moom mooy bëgg nit ñi yëg fi nga mel mhm. xam nga jekku na alxuraan mën na koo def jublu ci sant yàlla mu mhm. ngi sant yàlla ci jekku gi mu jekku alxuraan ji nga xam ne xam na lu jafe la loolu yéene ji mooy atte dëgg-dëgg lan la jublu ci yëg-yëg boobu mhm. waaye ki nga xam ne nag mi ngi yëg ci boppam di jëfandikoo noo xam ne mi ngi wan ni ñi ne daal àgg naa fu ngeen àggut wala mën naa lu ngeen mënut loolu mhm. ñaaw mhm. am naa ki yëg ni jekku na ko jekku goo xam ne coonaa ko coono la def ndax alxaan bala nga koo jekku da nga daj lu ne mhm. su boobaa nag mën nañ koo déggee yëgug sant yàlla ci jekku jekku téréb yàlla bi nga xam ne du ñëpp ko jekku léegi nag bu ci jubloo moom ñi laa toll kon xëy na ñi ko ñi ni melu ñu maa leen tiim boobaa nag moom day daal doon leneen jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci eh, jullit yi faatu ñu boole góor ak jigéen ci leen ci benn xabru boole ñaari nit ci benn xabru ci lu dul lor daganul eh. bala ñu ko sañ rek ngànt am ngànt amee manis naa boole nit ñaari nit benn bàmmeel boobaa nag mën nañu doon ñaari góor mën nañu doon ñaari jigéen mën nañu doon góoru jigéen waaw kenn tëréwu waaye dañu bëgg nag seen diggante balaa ñu xàjjale wala ñu suuf xàjjale leen. Mhm. waaw dañuy wax it ne bu ñuy jullee ay néew kii gën a moom man alxuraan gën a baax mooy mooy ne ci kanam ilmaan moom lay gën a jege ña jël ñu teg leen jëm penku waaye bu ñu leen doon suul ci men nand paax ngir ngànt ka ci gën mooy mooy mooy jiitu ba féete xibla dañuy tege tege kon bu doon jigéen góor ñaay jiitu jigéen ñi féete ginnaaw ci tar toftale googu bu doon ay góor kese walla jigéen kese nag ñu xool ko ci gën gën jiitu ko ci topp topp te gën gi ñu xool ci ak jub du ku gën a wattu alxuraanu kay gën a gënoon a gënoon a tegu ci yoon. Mhm. moom lañ jiital. jërëjëf sëriñ bi kii mu ne euh, dafay laaj ba xam ndax dana dagan ci jullit bi mu euh, yeesal kawaram kawaram maa def ko ay rest hmm. kawaru boppam. waaw euh, faaw ñu xool luñ ci jublu. Hmm. bu dee koo xam ne lor la. Hmm. masalan kawar gi daa daa soxla. taxañ ko ndax léttu mhm. sëñ Blaat mhm. euh, góor mën na léttu mhm. bu ko aajowoo te barab ba léttu di fa aada yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne bi mu bi mu fàttu ma bi mu gi da ko létt wala ñeenti jub waaye la goo xam ne léeg-léeg booy booy kii sax ñoom buñ sax dañ koy def lu mel ni yi nga xam ne am luñ ci def lu mel ne laakaane ba kawar gi du yëngutu di leen sonal waaye loolu aajo lay doon am naa suñu yi nga xam ne kawar yu gàtt lañ baaxoo yor moom léttu du fi aajo mhm. rankal euh, baram fi kawar du aajo mhm. te it ni ñu ko baaxoo def nag ñoom du ñu roy mhm. am na kilifa bu baax ko daan wax fii nee na nit ki bu yoree kawar gu sëq bu ko bàyyee noonu am daf lay nuru boo ko dee defar nuru wëyu xam nañ ne sëñ Cheikh Mbacke radiyallahu anhu daan wax lu mel noonu xam ne di tere ñiy sëqal ko nee na bu sëqee daal ñaar mën a am nga di ko defar nuru nuru wëyu wala nga bàyyi ko mu safaa nuru dof waaw laa la ko wax hmm. te eh, sa bàyyi ko mu salfaañoo dañ koy tere dañ salaam benn waaye ñëw na ci jàkka ji kawar gi salfaañoo mu ne ko demal nga defari sa kawar gi mu dem peña ko del siwaar mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw ci nit ñi kawar gi salfaañoo muy ñuroog saytaan ah. tax moo xoon daf ci xadis yi nekk ku ci am kawar na nga ko teral bëgg nañ ñu di ko defar uh-huh. waaye daa barab yoo xam nag yenn defar yi daa am ñu ko baaxoo def ba nga xam ne soo ko defaree ñoo ñu koy nuru uh-huh. noo koy defaree rek eh, am nañu nit ñoo xam ne kenn du roy ci ñoom uh-huh. ñoom lañ lay fage loolu nag lu ma tamoy tur jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne su fekkee ne daal waa ji dafa jaay ab kantingam dafa amoon ab bitig jaay ko ginnaaw bi eh, nguur gi soxla barab boobu dee du maase borom kanting ba ndax Euh, ki nga xam ne moom moom kantin bi mooy jël dédommage boobu wala ki nga xam ne moo ko ki ko njëkk moom moo koy jël wala ki ko ko mujj jënd. bu fekkee ne da koo jaay. Mhm. nga xam ne moom lim ci lépp daal moomeel gi tuuxoon na ci moom dem ci ki ko mujj yoon. Mhm. kon bu góor ngóor di ñëw ki ko moom. Mhm. ngóor kooku la dédommagé. ki ko mujj moom. ki ko moom rek jamono yu ngóor di ñëw kan moo ko moom. waaw ndax moom jël kële moom moomeelam génn na ci fekkee jaay na ko li jaay di tekki. mooy yow jox lañ la xaalis nga joxe li nga moom mm-hmm. kon amatu fa biti mm-hmm. waaye nag jël na lu ko wottee faccee soxlaam kon kii fi nekk léegi moom butig bu ko yoon soxlaa ba moom da ko jëndaati moom mm-hmm. ndax de dommage mooy da ko jënd ci moom mu dem nga nga def ko def ko ci njariñul nit nag ki ki ku moom nii kooku lañ ko jox ndax moo ko moom loolu nag bokkut ak bu ko luy woon butig moom yow da fay nekk dafay luyaas kon moomoo suuf si kon bu bu ñu dee démarché moom borom bitig la ñuy fay. Hmm. bu dee jaay moom yow mu nekkut sa loxo. Hmm. jërëjëf kii daal dafay laaj mu ne lan mooy àtteb ki nga xam ne dafa nekk ci jumaa ji bañ nodd nodd gu mujj ci bisub ajjuma te mënta génni jumaa ji e, ngir e, dem maanaam dafa nekk ci jumaa ji bañ nodd nodd gu mujj am jàppam te munta génni jumaa ji ngir dem jàppiwaat ba mu julli noonu maanaam lu kooku lu mu àttam jullitu jàpput moom faasiq ku ma koy def. Hmm. wala ku xamul waaye mënta gën jumaa ji mooy lan. <laughs> xëy na amut fu mu jaar jéggi wala. <laughs> mënta am say ah. <laughs> jumaa ni mu baaxoo bindee ay sàpp yarang la. waaw ah. nit ki moom faaw moom fu jaar ba génn. Hmm. fa mu jaar ba dugg mën na fa jaar ba génn. Hmm. mooy li wér. xëy na kay ruus naa génn wala xayaa fi diin. yu mel nii xayaa amu ci jógal jàpp. xëy na romb jàpp ne bu jógee nit ñi foog ne eh, moom ko am jàpp moo toj. ak lu mel noonu. mag ñi téere yi dañuy wax ne imaam bu am njàppam tojoon masalan ci biir julli mhm. bëgg nañu mu sutura boppam buy génn na def nii mhm. te ba kanam mu mel na kuy bori mhm. ndax xay na bàyyi xel gone yaradu ki nga xam ne daa tàmbali xalaat imaam kon njàpp moo toj moo tax mu génn yi kenn bu tee ba kanam mu mel na kuy bori loolu la moom itam na def pexe yoo xam ne nii jekki-jekki def nu mel nag daa mel ne ku am ngànt su génnee dem nag bu génnee jàppi bu dikkee lu des julli gi mu ànd ilmaan julli mhm. bu ñu sëlmalee te amul fekk mën a jullee mu julli tisbaar ndax ginnaaw ñëw na ci jàkka teel a ñëw ci waxtu woowu bu ko lay dabee dootul coobareem suñu borom moo ko moo ko teg mhm. kenn du ko ci topp bàkkaar waaye bu mu wax mukk rus na maa génn bay julli mhm. moom daganu ci ab bu ko def bàkkaar bu la def du julli toog bañ a julli sax gën toog a julli gën te loolu nag lu ko jar ne ko fi jërëjëf sëriñ bi kii daal dafay laaj ne euh, jullit bi nga xam ne dafa fekk dafa fekk wi wii fi jàmbur maanaam mu lijjanti ba connecté ca maanaam te amu ci ndigalul boroom lan lan moo di àtteem kook sàcc la sëriñ la kooku sàcc la <laughs> alal jàmbur nga jëfandiku ci borom ndigalul la ko waaw ah, yëpp moo da bàyyi xel la allahuma nag koo xam dafa ubbi wi fam tëju ko te xam na ne nit ñaa ngi koy mm. moo ko maye mm. waaye bu ko wutilee code nga fexe am pex yoo xam ne da ngay dajji code bi dugg ci biir. Mm-hmm. kooku sàcc la sàcc mm-hmm. mu ne kii la ndax dagan na ci nit ki maanaam mu bàyyi genn jaamu yàlla goo xam ne da koo baaxoo ngir euh, ragal nit ñi gis ko ba muy jàpp ci ne gis giñ koy gis ngir sal lay maanaam taxawaay ngir sal lay doon. Euh, sëriñ Blaat. Mm-hmm. gisal mooy ngay jaamu yàlla di ci bàyyi xel ku dul yàlla. gis nga su nee naa bàyyi lii. ngir bañ nit ñi jàppee ko njistal loolu mooy njistal mhm. dañuy wax ne li ñuy xàmmee njistal bokk na ca li ngay defal yàlla teewaayu nit ñi ak seenu fàddu mhm. bu ci jeexee tale rek na xam ne yaa ngi njistal mhm. nit ñi ak seenub fàddu bu jeexee tale ci li ngay def yaa ngi njistal baaxoo julli ñaar rakka fu mu ko mën a fekk bu waxtoo jotee na julli ko naan moo julli fii nit ñi dañuy jàpp ne na nangam yàlla tax ngay jur baaxoo nga ko def yàlla xam na tax di ko def mm-hmm. nit ñi jàpp ne leela yitteelu jàpp-jàpp mm-hmm. nit ñi amul benn njëriñ mm-hmm. du la yokk du la wàññi moo tax julit na xam ne yàlla lay defal fu mën a nekk bu def jotee mu def ak ngir yàlla bañ a bàyyi xel ci nit ñi ndax bàyyi xel boobu nit ñi loolu mooy al iltifaatu il xalq li ngay def nit ñi suur da bokk ci li ñuy tere ci ab julit li ñuy tere ab julit jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bi mooy suñu laaj bu ju ndax waxtu yi dab nañu euh, kii dafa laaj mu ne ndax dagan na ci jullit bi muy génne asaka euh, ba noppi di ko yónnee ay mbokkam mbokki jegeñaaleem yoo xam ne dañoo dëkk ci beneen dëkk boo xam ne bokkut ak bi nga xam ne fi la génnee asaka ji waaw xam nga asaka bu fekkee ne asakay mbay la hmm. wala ak jur hmm. fi asaka ji ne fi alal ji ne hmm. la ñuy teree ko ku fi génne lu mat masaafatul xasr mooy 72 kilomètres nga génne ko lu ëpp loolu ñuy tere waaye diggante Touba Mbàkke Njaareem loolu benn gox la masalan tey nit mën naa nekk Touba joxe asaka mu dem Njaareem duñ ko jàppee ko toxal asaka toxal gi ñuy wax dëgg-dëgg mooy nga génne ko lu mat masaafatul xasr te loolu sax bu ngànt amee mën naa nekk wala leeral ña ko jox ñu gën a aaju boobu bi ñu des ñu bàyyi xel ne eh, jox asaka sa mbokk moo gën jox ko jàmbur. sarax yëpp sax la yonent yàlla Muhammad moo waxoon ne nit ki bu saraxee am na sarax waaye bu saraxee mbokkam am sadaqatun wasila saraxe na jokk na mbokk kon loolu yiwee ne xëy na bàyyi xel rek ne asaka jox ko nit mu lay ñaanal rek dafa yéexee moom moo moytu la moo sax li gën ci nit ñi asaka boo koy jox nga wut ku la ca wuutu moo tax këri asaka yi am jariñ lool mm-hmm. nit ki bu leen joxee seen asaka sa jaan wàcc na mm-hmm. mën nañ ko jox sax ku takkale yow kër waaye moom du xam ne yaa ko joxe fii nit ñi liñ baaxoo def mooy ku leen jox asaka dañ la sant ak gërëm te yow leen la jox yow faqir yaa ko moom liñ bëgg kay mooy nga ñaanal ko mooy asaka ko jox muy faqir bi muy imaam bi nga xam day jaar ci moom saa bu nit indi asakaam na nga ko ñaanal xub min amwaalihim wa tuzakkihim waaye daja teg wa da mm-hmm. nga lay ñaanal ku indi asaka na nga ko ñaanal kon loolu yi moo tax ñu bëgg ku la jox asak mi ñaanal ko ah. waaye nag gis ko sant desu ko ah. ndax lu lu mumut lay joxe hmm. alal yàlla alal alal alal yi alal yi alal jum yàlla joxulu faqir bi hmm, kon yow faqir bi nga ko jox alal alalam nga ko jox hmm. mën na laa ñaanal yàlla barkeel la waaye nag waru sant waru laa gërëm te yooyu nag dana war dana joxe ko sa bopp dana jur loolu waaw lu mën a xew moom jox ko mbokk ci lu génnut masaafatul xasri dara nekku ci loolu nag mooy bu dee am mbay ak bu dee waaye bu dee asakay xaalis ñaari barab foofu ne joxe fi alal ji nekk ak yow borom alal yi fi nga dëkk masal nit mën naa nekk tubaa gi dëkk Ndakaar bu nekkee Ndakaaru jël asaka ji indi ko tubaa kenn doon da ngaa tuxal ndax fi la dëkk asakay xaalis borom mën na ko joxe fi mu dëkk mën na ko joxe fa liggéey liggéeyee kon xëy na bu xamee fawal fuqara xamuñ fuqara fu ci nekk mu jox la ba tey baax na hmm. waaye du mu wax ne Euh, euh, Touba liggéeyu fi waaye yóbbu na fa asaka ji rek kon daa tuxal asaka hmm. kooku bu ëppee masaaful xaalis réew bi ndax fa la dëkk hmm. ci misaal ñi nekk bitim réew te dëkk Sénégal mën nañu yónnee si ak Sénégal hmm. ndax fa ñuy liggéeyee fii lañ dëkk ko defee nag bu dee yee ñu wax nag muy jur ak moom la ñuy tere ko ko tuxal masaafatul xasri ci lu dul lool ci waaye ñaar yi moom moom it la ñuy tere weesale fi nga doon liggéeyee ak fi nga dëkk nga toxal ko fi yóbbu ko feneen fu bokkut ak ñaari barab yooyu te mat masaafatul loolu ngànt rek mooy ne ñenoo ñene foofa gën koo soxla mooy tax nit ki sañ ko waaye bu loolu moom jox ko ñu gën a jege waaw léegi kii kii liggéey nga xam ne moom xamul lu ñuy génnee asaka ndax sañ naa jël alalam jox ko lu mel ne kër asaka yi nga xam ne solution la bu taxaw ba noppi nag wax leen ne sama bokki jege ñaal yi bu ma sañoon ngeen jox leen loolu sañ na ko li sañ mooy na wax bokki jege ñaalam yooyu ñu dem ci kër asaka yi bindu ci fa hmm. waaye ñoom comme as kër asaka day wër ay foqara ki masaakin bu nit ñëwee présenté wu dana gëstu ba xam wax na dëggam de. Hmm. fi ne nii ni nga xamante ne la dëkk bi ni mel nit dana ñëw ne faqir la te du faqir. Hmm. te mbokk yi yi jot a nañ ci lu mel noonu. Hmm. ay nit ñun enquête gëstu leen ndekee lañ wax de moom nii ñoom amul xëy na waaye am nañ woy jur wala kilifa goo xam moo leen yor la warat ñoom ma koy def waaye bëgg lu mu denc moo tax mu ñëw ne faqir. te du faqir ndax faqir mooy ku yorut amul koo yor. waaye ki amut am ko am koo xam ne kooku war a dundal nekkul fa xeeb su ko joxul sañ naa dem ci woon ngir mu dundal ko waaye moom nekkul fa xeeb mhm. léegi nag loolu bokk na ci eh, kon kon kon boo joxee kër asaka yi nekk sama asaka ngi nii ñoom ña nga xam ne nag ña nga xam ne nag eh, dañ ko aajo woon say mbokk mën nañoo bindu ji foofa man nga it jox kër asaka leen lenn ñooñu nga jox leen ci mhm. ndax kër asaka waxu rek na jox ko léppam mhm. ndax mën nga am ñu la jege ñoo xam ne xam nga leen te sarti joxe asaka xam nga ko boo ci mënee tënku rek bu la neexee joxeel sa bopp ñooñu uh-huh. jël nag leneen loo jox grâce ak yi ñëw ñu mën koo man la cee jàppale ñoom itam uh-huh. jàllaleel la ko ci anam gi nga xam ne islam ndax boo ko defoon ñoom buñ defut yoon sax sa jamaat ci na uh-huh. joxe nga as yàlla bu kur asaka nag ñu fa nekk dafay safaan ñoom ñooy gàddu bàkkaar ba léegi ndax yow li ñu la def loo def nga ko loolu bokk na ci njëriñam saa boo leen joxee nga xam ne ñoom dañ ñëw gëstu ba xam li nga war a joxe ñu jël ko ni ñu ko war a jëlee yow sa jamaat ci na waaye yow nag boo ko joxelee sa bopp faaw nga joxe li nga war a joxe jox ko ki nga ko war a jox ci waxtu wi ko war a joxe mu door la wàcc. Mm. yii benn bu ci manqué rek génnee ko asal. Mm. it ma ta bàyyi xel seen nante mm. jamono kon mbokk yi ñuy seetaan moom kër asaka yi solution la bu am solo ci jullit bi ngir mu xam ko ci digalu si Amadou Mountakha taxaw na boobaak léegi mat na juróom-ñaari weer wala juróom-ñetti weer fii ci tuubaa ay borom yi xam-xam yu am solo yor ko sëñ Mbàkke Abdourahmane mii bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ko téye euh, noppale na ci ci ponk bu lislaam boobu lool nga xam ne soo amee lu mat asaka nga dem jox leen ko ñoom xam nañ niñ koy joxee xam nañ ni ñu ko war a jox lu am solo kon sëriñ bi ñu jox la nga tàggutoo euh, say kàddu yu mujj. jërëjëf sëñ Blaat ñu ngi dellu du nuyoo di sant ak di gërëm ñaan suñu borom euh, liñ fi wax yàlla jariñ ñu ci jariñ ci mbokk yi ko doon topp. Hmm. in uridu illa lista illa lislaha mastataat wa ma tawfiq illa billah ñu ngi jégalu ñëpp di baal ñëpp ak ginnaaw bu ñu leen baalee ak ci yi mbaax yi ngëneel yi ñu toll ah. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Mbacke Abdourahmane euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm euh, ci sa disponibilité ak ci sa yéwén ci xam-xam ak it labiré goo xam ne yaa ngi koy labiré bokki jullit yi saa su nekk ci li nga xam ne yàlla dénk na la ko yàlla na yàlla gën a may kattan may la wér barakati xaadim rasul ñi ngi sant bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci seen émission bii di gàggantiku euh, te seen seen seen MKTV di leen ko indil euh, weer wu jot euh, ñaari yoon ci weer wu nekk di sant it bokk yi ñu àndaloon ci wàllu technique bi sëñ Abdou bu Bousso mi nga xam ne mooy coordonné émission bi ak sëriñ Cheikh Diop di leen dig daje incha allah ci seen beneen émission gàggantiku Eh, di leen sant di leen ñaanal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam